mais sant yàlla du aj bu njëkk mais bu nekkee ni ma laaj ci Air Sénégal ca dëgg-dëgg ca dem ba comme ci ñëw bi ñàkkul ne ca dem ba amoon na ay jafe-jafe te loolu mënul ñàkk waaye ci ñëw bi seen taxawaay rafet na avion yi tegu na ci yoon na nañu retard benn waxtu te loolu c'est dafa nekk lu ànd ci ci vol mais amul dara lu xam ne si kenn ko Air Sénégal dañuy wax ne tombé mooy waral ay gaaf lu mat ñaar fukki at dañ daan dund ay situation yu métti ca mun na ren yàlla tombale na ci nguur gi li ne naar yi lu ñu waxoon def nañ ko am nañu nekkin bu xam ne même bu nekkul nekkin bu royal am nañu nekkin buñ musul am ca mun na nit ñi lekk nañu nit ñi tëdd nañu et mun naa nag bërëbu jaamu yàlla mook arab

bi ma yéegee ci Air Sénégal yëg naa fierte yëg naa li nga xamante ne moom mooy appartenance bi ma bokk ci ci réewuk Sénégal parce que depuis alhamdulilah depuis 2009 ba léegi yàlla mu ngi ñuy yombalal ñu ngi dem chaque fois ñu dem màkk alhamdulilah donc première fois nga yëg ne yaa ngi dugg ci biir euh, compagnie boo xamante ne sa réew moo ko moom loolu euh, sentiment boobu gisuma loo xamante ni euh, mën na ko mën na koo remplacer daal parce que ci yeneeni air nga daan roppalaan nga daan yéeg donc boo yéegee ci li nga xamante ni moom mooy li sa dëkk moom nga xamante ne tumuranke woo ci biir avion bi loolu yëg-yëg la boo xamante ne mais lépp loo gis ci début day am ay jafe-jafe donc li am solo moy ñu xol ak yi jafé jafé ñu xol nuñ ko wutalee li nga xamante mom moy ay ay ay solution parce que du ñak ngir né aji makka mo ñi démé euh yombul donc li ñuy ñaan autorité yi moo dini ne bi nga xamante ne jël nañ ko ci wàllug euh, Air Sénégal mën di yóbbu ujaaju sénégalais yi ñu continuer ci yi nga xamante ne moom mooy critique yi jóge fii wala yi jóge fële ñu dajale yëpp pour que ñu mën a améliorer parce que dafa amoon suñ benn prof buy wax ne nation boo xamante ne wala nit kuñ dul critiquer du avancer parce que dañuy recevoir critiques yi pour mu mën ñu permettre pour ñu mën a avancer ci li nga xamante ne moom mooy euh, li jëm ci ci ci kanam

di ñaan yàlla ñu dem ba mu am ay vol yu ëpp yi ñu am ba ñu gën a kontaan alhamdulilah